bu am am solo la bokk ci ngiru al imaamu Malik Suruh yu baree ngi ci waaye bi ci gën a siiw mooy ñuy jàng nii mooy bahiya ki ko saraa mooy Cheikh Salih di Abdul Masih bokk ci Azhar fa mu ko tàmbalee nag mooy aaya bi yàlla bi mu ne uxkum àtteel yow yonantu sallallahu alayhi wa sallam seen diggante bi ma anzalallahu ci la yàlla wàccee na ko nee na yow yonantu sallallahu alayhi wa seen diggante mooy diggante nit ñi ci li yàlla àtte ci yi li yàlla wàccee li yàlla wàccee mooy lan mooy alquran alquran nag yem ci alxuraan kese kese dina am lu des faw sunna moom mooy ñëw leeral alquran sunna mooy xadis yi ngay gis kon amna atté yo xamné xam ko fekk ci alquran waye sunna mom moy ñew leeral lako ko wala bu nekké ci alquran it sunna moy ñew leeral ko kon képp ko xamné atté wo ci li yalla wàccee koku alkand rek lay jur li yalla wàccee nak munoo gël atté bi bayyi bele mu jël ki sacc ñu dag loxom nga bayyi yeneen yi lool mënta nek faw da ngay jël atté yépp wala nga bayyi yépp ngaal ko Nena Bismillah, hisos ma sama wax ci tuddu turu bur bi arrahmani bur bay kon bépp mbindeef ci aduna arrahimi bur bay kon kep ko sop ci àllaaxira nee euh, tambale nako bismillahir rahmanir rahim ngir roy ndax tere bi yalla bi di euh, alquran sar wo ci wax wa amna bismillahir rahmanir rahim bam dess ben sar moy baraa baraa tauba sar bobu da fay ñew ngir déclarer xaré déclarer guerre motax nak nag àndut ak bismillahi rahmaani rahim ndax ku wax guerre sa xel daj fetel sa xel daj kanu ak yini mel ak jase xej te dafa sofa nok yermande motax amut Bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mbir mi lo mu am solo yonent wax na ne bepp mbir bu nit di tambale te tambale ko bismillahir rahmanir rahim mbir momu du soti wala bu sottee du am barke te barke nak du jëm waaye junne ñu xam ko kon bismillahir rahman rahim lu am am solo la nit ki buy lek nako wax buy nan nako wax wala nga ne bismillah sax buy sol yere nako wax nit ki buy lek wala muy nan te waxu ca bismillah wala bismillahir rahman rahim ñam woowu fek ba muy reesee nit koku xelam moy yalla rek mo ci nek kon tambale <clears throat> nako bismillahir rahmanir rahim motam mu ne qala waxna al sheikh serigne ba al imam kay Imam alaalimu kay borom xam-xam alallaamatu kay bëri xam-xam lool alimul allaama buñ ko waxee mooy koo xam ne dañ koy roy koo xam ne dañ koy roy ci ay jikko wala ci ay taalif wala ñuy tànkee ci moom ak yooyu turam mooy abdul baari yi abdul baari yi mooy moo di aw turam al asmaawi al asmaawi moo di giiram comme nga ne شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس الكولخي الرفاعي الرفاعي كم غني الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس الكولخي التيجاني kon arrifaa yu mooy dégg nga tariqa ba muy askano rahimahullahu yal na yàlla yërëm ko taala bu kawe bi sa ala nii laaj na ma badul asdiqaa yi lenn ci xarit yi an amala ma liggéey muqaddamatun lu ñuy jiital mooy ndawlaay fil fiqhi ci fiq ala mazhabil imaami malik ma def ko ci mazhabu ilimam ba di malikun malikin kay malik ibnu anas kay doomi anas radiallahu anhu yal na yàlla gërëm ko fa ci seen sababug laaj nag ajabat ho ci la tonto ila zalika jëm ci lolu rajien de aji yakar li sawa ñen ñolo bi ñen yolo bi yalla kon wax na lan mo sabab mu talif tere bi xeyul rek talif ko len ci xarit yi ñom ñoko ko laaj ñom ño sakku ci mom mom mu liggey lo xamne ndaw lay la lo xamne kep koy jang fiq dina ko meuna jital pour rek meuna jall ci yeneeni tere yi ndax lu mel ni alaxdari wala asmaawi boo ko jiitalul ngay tëb rek jëm ci risaala am na masaayil yoo xam ne nag doo ko mën a dégg ndax ñooñu ni ñuy euh, risaala na mu andee ci na mu andee ay masaayilam faw dangay jaar ci alaxdari jàll ci asmaawi ba ci muqaddima nga door a mën a jël risaala lu ko mooy day xaw a jafe ci yow ñooñ ñoo ko wax ne nag liggéeyal loo xam ne ndaw laay la nga def ko nag muy domenu fiq ci mazhabu imaamu Malik nee na nag seen sababu laañ nag ci laa tontoo ngir yaakaar yolob yàlla kon wax na sabab ba tax mu taalif téere ba waaye li tax mu taalif ko itam la mu ca yaakaar wax na ko mooy yolob yàlla